aujourd'hui Mbomboy ndox mi fu mu fu dem Yep, mu fay dem léegi Babak, la même chose ci la woowaa babak. comité bi woo la ñu leen léegi am na bi ñu war gas Mbomboy ak Babak. waa aussi mobilisé pendant deux jours Nyo ñu gas fii bu ñu aujourd'hui Ngooxoj moo nekkoon Jafé, Jafé, Babak. te ndox mi mi nyo. fa daan ñëw mi ngi fay ñëw ba ci ngi à jooju à Ngooxoj Jojo, Babak centre Ngooxoj jàmm gën ndox fay dem Mbomboy tous les sept quartiers ndox maa fay dem kër jëmb ndox ma ngi fay dem kër baara ndox ma ngi fay dem donc actuellement mun nañ sant yàlla bu baax a baax a baax a baax sant le chef de village de Mbomboy sant ki nga xamante ne mooy monsieur le maire de la commune di monsieur Alioune Sarr le ministre donc ñu ngi ko ciy gërëm bu baax a baax a baax di gërëm toute la population de Mbomboy di gërëm aussi le chef de village tax ma koy gërëm mooy il a osé commencer avant que nit ñi di ñëw tegu ci kawam donc defe naa njiit noonu lay mel donc ñu ngi ko ciy gërëm bu baax a baax a baax donc actuellement li ñu mën a wax rek mooy ndox mi coono yi population bi daan daj vraiment ndax waa Mbomboy dañ daan jóge fii takk saret di dem ba Kër Ibra Fall di rooti Babac la même chose mais actuellement des fois ndox day am Mbomboy sax am na kër yoo xam ne sax du ñu root parce que am nañ ndox depuis barki démb rootatuñ pour ngeen yeggale monsieur le maire ne ko jigéenu waa Mbomboy de ak jigéenu waa tundu jobaas bi nii tey jii moom gis nañ suñu bopp ndax heure bu ne lañ daan jog di rooti waa tey jii nag dematuñu rooti fenn fu mu ne nii yi moom nekkuñu du lu dul toog suñu kër yi rester chez vous léegi jekku ndax buñu naan rester chez te amoo ndox xam nga moo nekkoon mbir mi te tey ji am nañ ndox tubaar fu la léegi nag ah mën nañoo toog bu baax sant nañ ko nag. problème ndoxu Jobaas itteel na ko rawatina bu Mbomboy ndax Mathieu wax na leen ko kon ñun amee nañ ko sant amee nañ ko ngërëm bu baax a baax ndax ndox dafa nekk loo xam ne mënta ñàkk am ci réew mënta ñàkk am ci dëkk. moo tax bu ñu amee jafe-jafe ndox rek am nañu jafe-jafe boo xam ne dafa metti ñii nga xam ne nag yàlla def na ay jàngalekat lañu te ñu yóbbulu seen dëkk war nañoo jël exemple ci moom xam ne ñëw la pour jàngale rek da ngaa war a ñëw pour toog ci dëkk bi jàppale leen ci lu jafe jafe-jafe yu bari. dëkk boo xam ne bëgg nañ mu dem ci kanam ndaw ñi balaasee la loxo toog nii dëkk boobu du dem fenn ndaw ñi ñoo moom dëkk bi ñoo moom bi ci nekk yëpp kon ñoom nii ñu def nii noonu la ne ñu góorgóorlu li li di leen encouragé man ngeen def leneen lu ëpp kon loolu na ngeen dajaloo nekk benn nga ne jàppalante jéem a seet nan ngeen di développé seen seen seen dëkk bi nit mën na laa jàppale nag waaye sa dëkk kenn koo développé yaa koy développé lii xew ci réew mi mu bañoo ñoo ndax forage kat ku ko gasal nit def seetlu def lépp def canalisation yi war na nag forage boobu bu paane nag a ah war nga ci am pexe nag kon loolu man moom laa leen di dénk